asalaamaaleykum nuyu na leen ziar leen di leen jaajëfal bu baax a baax yéen ñii di nu topp ci suñu biir seen bii di seen Amsatou TV officiel technologie en wolof ñu ngi leen si jaajëfal bu baax a baax di la wax rek yow mi di nu seetaan bi dee gën nga suñu seen ngay doog a tombi seen vidéo nga abone te nga bas cloche de notification bi bala ngay bañ di manqué suñu yeneen vidéo automatiquement rek buñ dugalee benn vidéo YouTube dina la wax ne dugal nañ euh, benn vidéo bu bees pour yow mi nga xamante ne si ne yaa ni suivre te vidéo yi intéressé la euh, dañ lay ñaan rek ngay seetaan vidéo yi début à la fin pour ngeen di man di comprendre astuce yi ndax euh, fin bi dina am njëriñ pour ngay commencer si ba fin pour nga mën a comprendre astuce yi ñu leen di defal si ay tutoriel yëpp. tey nag dañu ñëwaat yow si benn astuce ci Facebook naka ngay désactiver lecture automatique video pour sa Facebook boo duggee rek euh, boo xoolee boo ñëwee si vidéo yi rek automatiquement day lire maanaam boo tombee si benn vidéo rek euh, day liir sans auto nga play ko nii boo si duggee rek day lire nii loolu rek lay ñëwal la nag nga koy désactiver si biir Facebook par exemple mënoon ngaa dugg Facebook pour bëgg xam benn information di liir wala dara far sa loxo laal ko automatiquement daf lay indil vidéo te day nekk euh, lecture automatique loolu rek la ñuy ñëw wala naka nga koy désactiver par exemple boo doon défilé nii ba gis euh, benn vidéo waaye ñu défilé nii boo défilé nii ba gis benn vidéo automatiquement vidéo bi boo si tolloo rek waaye comme vidéo bi nii automatiquement rek vidéo bi day day continuer di boo xoolee vidéo bi mi ngi nii dox te automatiquement boo xoolee pile wuñ ko lii automatique la boo si tolloo rek vidéo bi day liir lii tamit pour nga mën a économiser sa connexion wala dara euh, da si baax nga désactiver ko boo ko pileewul euh, vidéo bi du commencé quoi loolu nag lay ñëwoon la nag nga koy désactiver si sa biir Facebook loolu sa facile léegi boo ñëwee sa Facebook nii ñëwal nii si trois traits ni à droite nga cliquer si soo cliquer trois traits à droit lan ngay def Euh, paramètre ngay dem nga défile nii ba si suuf euh, bi dee yeneen Facebook yi mën na noo bañ a nuroo kii mais boo soir yow na nga paramètre moo xoolee fii muy defal ni paramètre inconfidentialité ñu cliqué si cliqué si boo si cliqué dina la indil euh, beneen paramètre fii suuf waaye yaa ngi gis dina la indil fii beneen paramètre si suuf bi dee yeneen téléphone yi nag boo si cliqué rek automatiquement def lay yóbbu si fi nga war a defee loolu léegi ñu cliquer si bu si cliquer bàyyi mu chargé wu mu ñëw ñun euh, nag euh, bu chargé wu ñëw boo xoolee fii mi ngi la defal compte si kaw waaye mu indil na fi préférence moo nekk nii filtre actualité préférence restitution notification recours yi longue ñoom voilà léegi dañuy ñëw fii fii lan soxaloon continuer multimédia yow nag bu fekkee beneen saara Facebook nga yor nag mën na la indil fu xamante ne si fi ngay def euh, sécurité connexion foofu ngay jaare quoi moom euh, du la ko indil nii comme mais sécurité connexion ngay jaar ba pare doog mu mu lay doog a indil kon euh, ne multimédia mu la koy doog a indil lii sécurité connexion ngay jaar ba pare mu la koy doog a bu fekkente nii ne da ngaa yor lu mel na yeneen Facebook yi léegi lan la ñuy def da ngay fii. suñ si cliquer dañuy patiente fii addil lañu fii yeneen option mais yëpp daan si ñaba yéen pour expliquer leen yi nekk si biir Facebook yëpp am na yu am am njëriñ si boo fii boo xoolee mi ngi indil fii économie sa données Facebook bëri na paramétrage yi nekk si biir xamante ne si ne boo ko utiliser daf lay dimbale bu baax a baax ah, waaye léegi ñun fan lañ fan lan moo amal euh, njariñ léegi fii nii lan bëgg a ñëw lecture automatique boo xoolee moo nekk ni lecture automatique voilà léegi boo xoolee mi ngi kosewu si fii mi ngi kosewu sur données mobile et fi maanaam ngay connecté wifi wala ngay connecté sa donnée mobile automatiquement rek bu fekkante ne ne connexion bi neex na boo duggee si Facebook bi nga doon defale ni di seetaan benn photo wala ngay liir benn information euh, bu sa loxo laalee ba mu jàll ba tombe si vidéo rek day daal di lire automatique loolu nag boo ko bëggee désactiver c'est facile comme fii ñu jaar rek ngay jaar moom lay ñëw di la ko wan nii moo tax mun a la surdonné mobile f fi yooyu yëpp boo si connecté rek maanaam vidéo yi del lire automatique bu la neexee tamit nga def ko fi unique maanaam fi unique euh, booy connecté wifi rek la lecture automatique vidéo di daw mooy wifi unique booy connecté wifi rek maanaam boobu la vidéo yi di daw automatique léegi yow bëggoo vidéo yi di nekk di daw loo xamante ne si na day automatique wala en plus bu fekkante ne tamit bëggoo vidéo yi di dawaale ànd ak son fii nga koy désactiver maanaam vidéo yi les vidéos démarrer avec le son maanaam bu la neexee tamit ngay développer nii si vidéo bi bu la neexee si Facebook ngay développer ba benn vidéo daw bu la neexee mën nga kaa désactiver du ànd ak son maanaam vidéo bi rek ay daw mais bu la neexee mën nga kaa seetaan noonu léegi bii moo si gën a intéressé nag mooy na j'aime lire les video automatiques maanaam bu bëggante boo bëggee vidéo yi du daw automatique fii ngay cose waaye la modification est enregistré instant bii nii enregistré woon na buñ arrêté demaat ci Facebook bi euh, buñ ci duggee buñ gisee benn vidéo du liir automatique quoi waaye am na yenn option yu xamante ne si ne daan si ñëwaat ak yéen si biir Facebook yu am am solo waaye ñu def retour dem xool euh, ñu dugg fii waxam waaye yaa ngi gis léegi vidéo bii nii bin si egsi woon léegi dem si extrait automatiquement vidéo bi commencé lire mais vous voyez léegi boo xoolee vidéo bi fekk play ko fii nii du daw day kosewu automatique lii fekk woo ko vidéo bi daw mais bu fekkante ne da nga kaa bàyyi automatique nag euh, boo toll si vidéo rek mën nay daw bu fekkante ne nag sa connexion bëriwul dara mën nay jaxase connexion te lii dafa bokk si économiser connexion soit mënoon ngaa nekk Facebook nii sax di liir benn information nii di liir ay information sa loxo laalaale fi vidéo bi rek day daw te parfois mën na lay déranger wala dara loolu fekkante ne bëggoo ko nii nga koy désactiver waaye vidéo bi mi ngi nii automatiquement dafa taxaw feeg pelewul digg bi nii mun pelewul digg bi nii waaye yaa ngi gis mu commencé daw nii léegi nga génn nii léegi dañuy demaat ci trois traits ñu wan la xool buñ la ko activé waatee ni muy dawee léegi ñu dugaat paramètre bàyyi mu chargé wu mu ñëw ñu dindiwaat ko won la pour exemple rek ñu bàyyi mu def benn chargement ñëw patienté bàyyi mu chargé ñëw enregistré quelques minutes rek voilà léegi ñëw na automatiquement day defal lu gaaw rek wala vidéo yi di bañ a gudd léegi day ñëwaat continuer multimédia cliquer automatiquement day ñëw fii rek ba tolloog euh, lecture automatique waaye fan lañ ko kose woon na j'aime liir la vidéo automatique ñu désactiver waat ko automatiquement day daal di désactivé wu c'est normal voilà instant bi désactivé wu quoi léegi mën nañoo génn voilà j'espère que ne gars yi yéen bi lan leen andiloon di la wax na rek bi la intéressé nga activé di leen jaajëfal bu baax ak yéen nga xamante ne si ne yeneen topp suñ seen bii di seen Omzo TV officiel technologie à wolof di wax na képp ku si gan suñ biir seen rek nga ne comme noonu te nga was cloche de notification bi bala ngay benn di manqué yeneen i vidéo di lay dégg daje à la prochaine vidéo incha allah.